ndax man sëriñ Touba euh, dama cee jeex tàkk ooma lu dul Serigne Touba képp ku ma gis ngay def ci yoonu sëriñ Touba bi loo xam ne yéene naa ko te mënuma ko man duma man lu may sant kooka te yàlla tax ak sëriñ Touba tax soxna Aida nag lii muy def képp xoo xam ne teg nga ci sa bët nii ma ci tege sama bët bu fekkee ne mbërum Serigne mbégum sëriñ Touba sa mbég la da ci war a bég ndax jigéen joo xam ne dafa toll ci waroon a mën a def lu ne ñuy xool jigéen ñi ñuy fab ay million di ko baatare ci soirée yi di def lu ne moom mu jël ay milliards ñëw di jànkonteeg coono bii nga xam ne kenn nettali ma ko maa ci teg ma bët te Serigne Touba tax ma di ko def loolu moo tax ma jël samay engagement def bii témoignage nga xam ne man la concerné tàgguwuma ci kenn lii may wax it mu dem ci adduna bi yëpp. képp koo xam ne mbëggum Serigne Touba sa mbég la nga ñëw ba gis coono bii soxna si jànkonteel ak ñii mu àndal ak lii muy jënd ay nag teg ay milliards di ko liggéeyal sëriñ Touba yaakaar naa ne kuy mbégum Serigne Touba ñor lii war na laa ñor man nag ñor na ma te li may ñaanal soxna si ak mbooleem ñi ànd ak moom yal na yàlla jàpp leen ba fi ñu bëgg a àggale liggéeyub Serigne Saliou bi ñu àggale ko fa lii nag euh, du loo xamante ne bii euh, lu nuy wax la ndax lu nuy yëg la man ci yëg-yëg laa waxee ndax Serigne Béthio Thioune mi nga xam ne moo ko doon denc kenn ku ne xam ne li nekk ci moom Serigne Saliou ko ci def loolee nag li muy wane rek mooy sëriñ Touba dafa wut yeneen ci kaw suuf li ma ci jàngatee bi ma gisee soxna si muy lii muy daj ma xool soxna Aïcha ci histoire yonent bi bi nga xamee ne soxna Aïcha yonent bi jóge na fa la ca xewoon ma xool ne Serigne Touba wuutu gi mu wuutu yonent bi ci kaw suuf moo tax mbirum sox ay soxna ay da nekk nii ci mbirum Serigne Touba kon man loolu rek laa ci jëlee sama xam-xam bu gàtt maa ngi sant yàlla bu baax di leen xamal ne ñëw gi ma ñëw fii ba teg ci sama bët ci dara lii may wax man la concerné ngir yàlla ak jëmmi sëriñ Touba jee tax ma di ko wax dama cee teg sama bët nag nit ki nag man na ma mën naa dégg waaye li nga gis te sëriñ Touba tax sañ nga koo seere man c'est bon c'est bon si maman est venue nous tous on gagne bonheur tous les Maliens ici à Songo Gao Kidal nous tous si on a entendu maman est venue on vient on gagne beaucoup de bonheur alhamdulillah bon merci nous tous, longue vie. Et je me présente, moi je suis M. Ablay Bokum, qui est Van au Bamako, je suis petit frère de Boukar Bokum. Donc lorsque maman est venue aussi, tout le monde a eu de bonheur. Tous les Maliens sont contents, ils ont eu de bonheur. Donc il est venu, c'était tous les bœufs pour le Magal. Autour, tout le bœufs de Magal. Donc quand maman vient ici, tout le monde va content. Donc maman est venue ici, quand maman est venue, il nous présentait qu'il ne va pas petit bœuf. Il voulait le gros bœuf seulement. Donc on a fait tout possible pour chercher le gros bœuf. Depuis le jour que maman est venue, on cherche tout partout, depuis Kida jusqu'à Bamako. Comme nous, on est allé à Bamako, tout le monde s'est raconté que maman est venue. Tout le monde a envoyé son bœuf. Ils sont trop gros aussi, tout le monde a envoyé. son. man man Amadou man li wax rek homme. na fi un waaw moromam maanaam ba daral bi bu ñu ko sampee ba léegi ñu ne xamul kañ lañ sant samp amul ku fi nekk ko xam daral ba mu kañ ko samp waaye kuy jënd lu muy jënd fi de musu fi ñëw te nañ ko balaa kooku ñëw tamit du yàgg xam naa ci loo xam rek lañ ko bàyyi ñun moom amul bu ko samp daral bi ba tey ku ko mus a jënd fii junnee nag rek amut te moom lu muy jënd kenn amul lim bi day jënd rek ba nag yi jeex rek nu pare naa bi yoon moom loolu laa mën a seede ci moom te maa ngi koy seerle lu baax dara bi yëpp ay kontaan waaw lu mu jënd bi yoon de xam naa moom bu fukk junni de instant bi exact aw ma ko waaye xam naa daal weesu na ay juróom-ñaari junni wala juróom-ñetti junni moom loolu moom xam loolu man wóor na ma ndax bokk naa ci ñi représenté ñi nag yi loolu man xam naa ko te xam naa ku ma gis si vidéo bi tamit xam na ko comprendre waaw lim bi daal amaguma exact waaye xam naa daal bu eggul fukk tamit xam naa ay juróom-ñeente wala juróom-ñeente junni moom jënd na ko fi te ñu ngi koy ñaanal mu sax fi mu ànd ak moom jërëjëf waaw loolu de laa si gis na maa ngi lay jaar bu baax jërëjëf. jërëjëf seex Saliou ñoo ngi lay siyaare bu baax Samb di am mbégtem lool ci lii nga xam ne moom lañu fi fekk tey te gis ko fi ndax yàgg naa dégg soxna si ak ñëwam Mali di def si lii muy def si di waajal màggal gi. ma amoon yéene nag lu jiitu tey pour euh, ñëwoon ba gisal saa bopp waaye tey jii la ko yàlla soog a dogal lii nag lii may bëgg a def muy sama déclaration man mii la concerné